asgor gor ak ngor ak gore bokkuñ as gor ñaar ñi ko juróo yam judd kenn mu la jam sa morom ki gore yam ci du laal dara kenn waaye dara du dem ci kenn ngor ci am ngor ta xam ngor ta gore nag mooy dog bu mi gàcce ta du ko wax moo tax may wax ni alaaji abdul asis yi malik ca tiwaawan li mu rawee gaa yi bari na alaaji abdul asis may limu la gars yi bari na. fàtte abonné si compte Résista du la ci kolos bi ngir jot si yeneen vidéo yi. moo defagul lii ci réew mi ci biir nit ñi te nit ñi nite ñee ko xam. mooy jéggal ku la tooñ. dab ku lay daw. jox ku lay xañ. teral koo xamul. muñ loo mën a faj. ñett li ko ngor. di dimbali ay noonam. di sant yalla ci dogalam Alaaji Abdou Aziz Sy Alaaji Abdou Aziz Sy ñàkk defe ngor ñer and ak sago nit ci fit mas la ko la jikkoom ala alalam mu di ci jëriñ ay bañam Alaaji Abdou Aziz Sy kon damay wax ni senegal buñ tëggan lambe xam-xam kenn ku ne jëli sab sëriñ dij ba munta farak sëñ Mansoor si bul wàlli ma ni diine ak ngor ak lislaam sëriñ Moustapha si téye na ko ca Fass ga Ndakaaru koo soxla fekki ko ca